ngi rafetlu bu baax ànd bi ngeen sax dàq ci programme yu rajo télévision bu Walfadjri waaye itam di ñu seetaan saa su ne ci walfnet.com mbokki xarit yi seetaan ak déglu dale na jàmm ci seen émission sortie tey ji nag ci 8 mars bi spécialement ñuy ndokkale di sargal képp kuy jigéen ci àdduna wërngal këpp ndax bés bile fi ba minuit jàpp naa ne jigéen ñi ñoo moome kon nag dañ leen di sargal di leen màggal waaye itam di leen tatagal ci bës bu ni mel waral nag ci suñu émission sorti ñu jàkkaarloo ci ak soxna soo xamante ne am na loo xam ne marqué na ko ci histoire fii ci Sénégal muy ku njëkk ci jigéen taxaw samp dëndam ci ay élection présidentielle di dagaan baatu askan wi ngir jiite réew mi muy soxna Marième Wane Ly jiite parti bi ñuy wooyee Parena ma di la nuyu xëy naa lu Ndeye Fatou mhm. waaw kontaan bu baax du nuyu waa Sénégal yëpp du sargal jigéenu àddina yëpp jara sargal lañu d'accord ñu ñëw ci rapidement suñu présentation kan mooy Mariam Wanlé Mariam Wanlé de jigéenu Haalpulaar la euh, bu màggee ci olof yi ndax bokk ak Sénégal yëpp yàlla ka may loolu jàng fii ci réew mi ba nekk professeur jàng dolli ci nekk affaire affaire genre naka lañu séddalee lu réew mi moom ba jigéen ñeeg góor ñeeg ndaw ñeeg màggat ñeeg ñëpp amul xaajal amul seen ñëpp yem si loolu ma nekk si conseiller lu yàgg si primature fee jóge fa nekk sénateur vice présidente du Sénat yore sama parti depuis 98 laa nga créé bu tudd parti pour la renaissance africaine mooy dekkal rek ñu dellu sa Afrique ba mu dëgëree ba taxaw seet lan moo ko taxawaloon ñu dellu sa lool jëm kanam loolu sama parti tudd ma ne nag pare naa pour loolu loolu te pare naa bi la nit ñi gën a xam mhm. pare naa la nit ñi gën a xam lu tax nga sóobu ci politique Euh, xam nga ni ma dama jàpp rek ni nit ku nekk am nga mission am na lu nga xam ne dafa mel ne doo ko tey di ko def man dama juddu rek politique intéressé ma ba ma amee fukki at ñett de laa commencé politique donc créer sama parti fekk na am naa fanweeri at de pratique politique lu ma fanweeri at muy politique lépp lu ma dégg rek ni loo ñooñu defar nañ seen réew bu jëm kanam ma jublu ko. commencé woon parce que chinois yii léegi 49 la Mao Tse-tung commencé woon ma gis ni ñoom dañuy tëj seen bunt xalaat tëgg seen xel ba xam ni lan moo leen jëm kanam moom moo jur lu ngeen gis nii léegi Chine fa Amérique taxaw mu taxaw ko ba léegi moo leen sut sax si yu bare ma daal di dem ni léegi moom Mao Tse-tung laay gëstu ba xam ma nekk sa ba ba yàgg yàlla dimbali ma ma tase Cheikh Anta nga xam ni comme Mao Tse-tung moom dafa jëloon aada réewam xool appliqué science bi si réewam ma gis yàlla dimbali ma Sénégal am góor gu baax tudd Cheikh Anta Diop ma ànd ak moom ba muy créé parti RND e 74 mhm. moom nekk maanaam fondateur bokk si ba jóge sa dem si parti beneen bu Ibrahima Thiam créé parti ma daal di saa bokk nekk présidente jigéen ñi foofu nag laa xam ne am na assez de expérience ma seetlu tamit ni jigéen moom expérience bu mënti am si Sénégal dañ koy dénk rek jigéenu moromam ñi président national des femmes daal nga mën a jot fekk itam bokk naa si mouvement wu jigéen ñi nag COSAF sax bañ koy fondé man si laa bokk si maanaam fondateur yi bokk si bureau bi ñu tëgg loolu yëpp daal ma xool ko ba xam ne léegi daal dafa sës bu ma bëggee daal yu ma bëgg yu ma gëm yi ñu doxal ko naa créé parti ma créé parti tudd ko parti pour la renaissance mhm. africaine pare na moo la dugal yéen lan mooy say conviction sama conviction mooy euh, dafa demoon yàlla bu mu sàkkee àddina Afrique da ko jox cër bu mag ba nga xam ne mën nañu wax ne ba euh, nit wàccee si suuf ba ba mu des rek tuuti ba ba yàggul de mille huit cent yi rek la de matu sax trois cents ans mm-hmm. si la Afrique commencé daanu te lu ko daaneel mooy xëy na ay xeex si biir ba ay nit jóge fen dañu néewoon doole nit ku weex dafa néewoon doole ba jàppoon nañ ko sax moo doon moo doon nekk ay jaam ak yooyu afrique pharaon pharaon yu ñuul yi teguñu woon sax nit ku weex muy nit te lépp luy xeetu xam-xam foofu lu su xeexi ko dégg nga ñoom ñu ñëw di jàng si nii ñuy deme Amérique wala Japon wala fenn di jàng si noonu la nit ñu weex yi noonu ñëw Afrique fii di jàng lu neex ñu jàng si ba tey sax ñuy jàng di dem dégg nga ma gis nag ni Afrique boobu lu ko na saxal rek mooy colonisation mm-hmm. ak yooyu te colonisation rek fexe. képp koo bëgg a bëgg a toog si kaw dëndam te du bouger danga naan ko dof nga doo nit mbaam nga rek boobu nangu ko loolu moo leen tax a jóg mooy bëgg nag bokk si ñuy fippu daal di dindi fi loolu xam ne ñun ay nit la ñu yàlla sédd lu bare mooy bëgg nag Afrique nekk benn. sama mhm. xeex yëpp daal mooy Afrique nekk mooy say conviction say valeur. samay valeur mhm. mooy loolu mooy daal sukkandiku si valeur yu nga xam ne. Mhm. moom la sama papa sama yaay yare. mooy valeur u l'islam wax ko ak valeur cosaan suñu cosaanu maam yu baax yi loolu mooy sama valeur dëgg loo bëgg mu dañ ci réew mi loo xam ne neexul lu ma gën a bëgg mu dañ ci réew mi mooy fonk tubaab lu ma fi gën a bañ mooy toppandoo tubaab lépp lu ñuy def lu ne mooy toppandoo neen ñi nga xam ne duñu doo dégg ku jàng xam-xam ñu si bare borom xam-xam ñoo xam ñoom la gën a wóolu si réew mi doo leen dégg mukk sax ñu daal di maam baam ba wax na ni wala maam Malick wax na ni wala sax Kocc ma boo koy dégg sa da dégg si ndongal daara yi mais ba jàng tubaab ba génn da nga tubaab bi daal ñoo wax dëgg. Hmm. ñoom rek a wax dëgg ku koy cité moom ngay cité ma bëgg ñu dellu si di jàngale ñu nga xam ni seen àddina yëpp da doon xalaat nu ñuy def àddina taxaw muy suñu waa réew mi. kon anti anti tubaab nga yow. non entre du ma entre tubaab nu ma bëri xaritu tubaab. Mm. bu demee tubaab itam dañ maa fonk. parce que ñoom mm. fonk ñu lu dul nit ko nga xam ne xam na lu ma bëgg. Mm-hmm. du ma entre tubaab lu ma anti mooy. Mm-hmm. nga daal di ñëw bàyyi bàyyi sa bopp. Mm-hmm. topp nit yàlla sax bëggul lool yàlla daal booy amee koy topp toppal yàlla mais topp nit. xoolal nit rek sa rek sax boo ko toppee yenn topp yi mu jëpp la. marié mère de famille. <laughs> ma mère de famille. d'accord ñu ñëw nag ci wàllu euh, questionnaire bi war a jàkkaarloo nag euh, laaj bu njëkk. bi ngay samp sa ndënd ci présidentielle en 2000 lan moo ko waral lu tax nga ne man damay war a nekk candidat ci élection présidentielle mooy lu ma la wax rek mooy dama jàppoon ne ñu nekkoon muy abdu Diouf muy Abdoulaye Wade muy Diouma Ka à l'époque muy Moustapha Niass bare woon nañu ñu nga xam ne dañuy samp seen dënd ma jàpp ni kenn si ñoom ëpp ñu ma expérience politique kenn si ñoom gënu ma bëgg réew mi kenn si ñoom ëpp ma fit kenn si ñoom ëpp ma doole sax mu wax loolu. Hmm. <laughs> waaw ci ci bu politique yooyu. waaw ci kàngamu politique yooyu kenn si ñoom ëppale ma dégg nga lu politique laaj ba fële ba de des xanaa xaalis parce que kenn ku si nekk xëy na ba nga doon sax sa maam wala xëy na Abdoulaye Wade xaw ma si dara mais daal xam naa ne daal loolu rek laa mën a wax ne xëy na ñoom ko ëppale te ma jàpp ne loolu te ma amoon expérience nag bu bare xam ne expérience boobu mën naa yore réew ma ni damay woote. ah nee la comme nu ma wax rek foofu rek laa mënoon teerese. Mhm. parce que dama sa bopp daal gis mhm. ku mel ni Abdou Diouf. ci boobu période. waaw Ablaye Wade. waaw Djibo Ka Moustapha Niasse. nga diiranteeg ñoom mbagg. waaw ko lu na ngemboon. waaw lan moo la ngemboon ba ngay def loolu xanaa am na lu la dooleel fital la. lu ma lu ma dooleel fital ma nee naa sama expérience rek. donc oh, dama ko xam parce que nit moom. yàllaa ko may loolu nit ku nekk bu wóoloo yàlla nee na moom boo demee di nga dem ba nga nekk sax. say loxo nekk samay loxo say bët nekk samay bët sa làmmiñ nekk samay làmmiñ nga xam ne ko nit dina dem ba nekk si yàlla lu bari nekk si moom nga xam ne kon nit am na doole nit ko na bu fonkee boppam xool boppam nee naa la demoon naa di jàng si ma wasatu mooy compter sur ses propres forces et lutter avec endurance nit ku nekk bu xoolee boppam rek tëgg xelam kii ka daas ka ba mu ñëw rek am na lu bare lu mu mën a def mm. xanaa kay muy ràññee ndax lii baax na wala baaxul wante fit moom si biir nit la ne mais est que newul parce que da nga ne jigéen laa te jigéen mosul présenté wu xaaral ma njëkk ko pour yokk sa CV xam nga loolu moom baax na ci CV ancienne candidate présidentielle. non non non wallaahi yàlla xam nañ xalaatuma loolu parce que man xam nga lu tax yàgg na léegi sax ba léegi sax man politique moom pour am ci dara. ñun ba ñuy am yow tëj nañ si ànd na ay ñoo xam dee nañ si kaso bi si tam euh, Senghor ñoom Omar Blondin ñi ñoom Alioune Cissé am na ay jeune étudiants am ay jeunes yu bari yu nga xam ne dañ doon xeex tubaab yi xam ne ñii bi ñu leen bàyyee maa ngi waxati tubaab da nga def ni tubaab bi dama war a wax ay taa français wala impérialisme. impérialisme waaw. bi nga xam ne ñii bi ñu leen bàyyee dinañ ñu fi jëlee ñu xeex leen ñii ñu rey leen ñu tëj leen Senghor moom da doon si loolu boo nee na fi tubaab bi jógee rek mu faagaagal. Mm-hmm. alors donc. Euh, mais loolu nguur gi fi nekkoon la wala tubaab yi yaa ngi naan tubaab yi mais nguur a fi nekkoon doon gérer yooyu dossier mais ba tey xam nga ni euh, àddina dox na ba tey bu ñu góorgóorluwul moomaguñu suñu bopp ba tey xam nga loolu hmm. dafa metti nag mais moomuñu suñu bopp ba tey moomuñu suñu bopp état indépendant souverain waaw état indépendant bu nga xam ne amoo dara loo mën a defal sa bopp te comme yaa ngi dépendre sa ñee ñoo lay dimbali ñoo jàppale am nañu sañ-sañ nga ne fii laa bëgg a dem ñu ne déedéet bul demagum foofu dégg nga ko fi dégg nga fi plusieurs fois ay chef d' état français wala feneen woo suñu chef d' état ñu toog mu ne leen dama bëgg suba ngeen commencé doxal démocratie bu yàggee ñu leen déedéet démocratie léegi doy na dama bëgg ngeen seen école yi bu leen jàngalee ci lii ak ngeen jàngale lii de loolu am na fi. Mhm. yaa ngi waaw kon na nga xam ni kon des na tànk nag moomuñu suñu boobu nee naa la yoonu Chine bii daal yoon la. yow nga gis. gis naa Chine gis mais kii ñàkk féete ñàkk day indi ñàkk wërsëg mm-hmm. la dama féete exemple la daal mais ñu mm-hmm. bari nuru nañ kat mm-hmm. ñu del si waat présidentielle 2000 waaw eh, wax nga ko élection présidentielle yombul campagne ba cher na caution ba ngay joxe métti na foo jëlee loo ko defee waaw yow booy fàttaliku ko nag 2000 dama dem sax ba xam ni caution millions yi dafa abare 6 millions rek la woon xoolal léegi car 65 millions alors que boobu 6 millions ba ñu demee ba ñuy dañuy joxe xaalis ba si leen ni du ma joxe 6 millions. ah atte nga <laughs> kon joxe woo sa gos yow. leen joxe wu ma. lu tax <laughs> ba pare kon bu fekkee ne nangatu leen ma nekk président ma seet kenn ku ma neex si ñii ma jàppale leen 2000 laa joxe 2 millions nag campagne 2001. Hmm. daal di campagne nag pour député yi mais 2000. dañuy hmm. dem ba le 26 janvier boobu nga xam ne ngay joxe caution wala dootoo demati man leen joxe wu ma. ñu bàyyi la nga bokk ah day xanaa dañoo dawal yërmande foofu dama dem dama dem coalition. dama dem coalition je te rappelle en deux mille ma mujj a dem coalition. ak ak Moustapha Niasse. Mhm, waaw waaw waaw waaw noonu noonu la mujj a demee. Mhm. la campagne nekk tête de liste joxe sama 2000 sama sama 2 millions rek la woon daal di def sama liste bopp def sa 65 pour cent femmes daal di wër mi campagne ba doy le ba pare nag sama ay mbokk yu nga xam bien placé. dans les rouages de l'État ni ma yow de bare woon nga député mais naruñu la jox dara. Mhm. non mais yow présenté woon nga ci élection 2000 pour candidate. waaw waaw présent présenté xam nga loolu nu mu demee. waaw comme historienne la damay rendre l'histoire comme nu mu demee. 8 mhm. mars 98. laa ni damay nekk candidate à la présidence du Sénégal te élection yi kañ la février. 2000 mhm. ñaari at may campagne. ñaari at may campagne donc ba àddina yëpp BBC yeeg ñu xaw ma lan rajo yeeg télévision àddina yëpp filmé nañ ma. Mhm. parce que pour ñoom c' était la première fois benn africaine di nangu naan dafay nekk candidat à la présidence la lu nekk am na si. boobu mu nee naa la ba 26 janvier nag 26 janvier 2006 2000. 26 janvier ba nga xam ne dañu war a def caution si la leen ni nag man du ma joxe si 6 ñu bàyyi la nga présenté wu. ñu bàyyi ma ma cam déedéet nekkatuma candidat di ko. kon nekkoo mujjoo nekk candidat en 2000 dama jàppale dama jàppale kenn 2001 nag laa nekk candidat kii. pour législative donc l'histoire a retenu c'est la première femme candidate parce que j'ai fait la campagne jusqu'en janvier mais. je suis pas allée aux élections. kon kay li ma la doon wax euh, riir nga buggoon rek ak yokk CV. mais non. ah riir ak yokk CV <laughs> bu fekkee <laughs> signalé wu nga kay ba ñëpp ne tey wu taxaw. non non nga ñëw ci mujjantal ga retiré wu. loolu du sama genre sax. loo ah. loolu taxumaa loolu dama la bëgg wax rek. kon juy nga gars yi wala soxna yi la naroon a jàppale. voilà ba léegi ne am na ñu koy jooy ba léegi ñu naan ba yow waroon nga continuer rek loolu. mais 2001 continuer naa 2001 euh, laa def sama liste nag. def campagne législative bi. ñu mhm. ah. jóge ci loolu nga ne Moustapha Niasse nga jàppale en 2000. ah 2000 mais mujj gi après CAP 21 nga dugg ci Ablaye Wade. Euh, waaw lu ma ma jàppale Moustapha Niasse. ba 2000 ba 2004 ba mil après ba mu nekk premier ministre. mais man nee wax naa la sànq. hors antenne la ko di la man bu campagne mm. léegi nag ba campagne bi jeexee. Moustapha Niass man ma ma kooku ma mu génn ci Ablaye man ma bàyyi dematuma si moom génn naa ko 2000 jàppaleetuma ko dama ko doon jàppale en tant que coalition te jàppale bi du nekk jàppale nul nii de ma man bëtu nit du tax ma jàppale ko mm. jàppale bi sama programme laa ni lii su booy fàttali ko temps yooyu man euh, kenn campagne wul woon du tudd jigéen xanaa rek nga ni dinaa defal jigéen ñi léegi man ma indi approche genre boobu wax naa dama ko jàng ma am sa ay diplôme ma indi ka wax ko ba mu leer ni nag képp ko am xam dama lay jàppale ba ma nee ba ma nee rek pour mu leer sax ba ma nee dootuma joxati 6 millions képp ku nekkoon candidat si ñeneen ñi woo nga ma ni ma kaay jàppale ma bu ma gañee ma def la lii ak lii ak laa man leen di man daal du ma discuter sa boo gañee lu may def mais daal sama programme mooy xale yu ndaw yi parce que kenn doon woon xale yu ndaw dañ leen di xale yu ndaw yi màggat yi wala troisième âge handicapé yi dégg nga loolu mooy approche genre ak les femmes te les femmes du rek jox leen ay kii nii mooy leen secteur boo jël boo jëlee industrie nga xool budget bi temps la jigéen ñi lan nga leen si jàppale. kon programme daal nga discuté woon. ci moment yooyu programme laa discuté waaw mais nga jàppale ñas. ma jàppale ànd ak moom. léegi def virage 100 degré ci wàdd. non virage 100 degré peut-être pas <laughs> parce que léegi daal. peut-être aussi ah mën naa toujours ma si neex rek laay def léegi <laughs> bu bu ma jàppalee daal ba xam fii laay mën a yow ak dama la doon gunge rek ma taxaw. Hmm. parce que sama programme bopp laa am de. Hmm. sama programme mooy ku ci dugg nga ànd ak moom ku ci eh, génn nga sama programme daal laa am. bu ma gisee ne kii. li nga waa dul sax ma jàppale ko. dañuy dem nag ba mu toog rek deux ans la dawal rek jël sama programme waaye da toujours dama naan sama programme la triche. sama programme yëpp. renaissance africaine déggoon nga ko avant waaw soppi nga doon dégg mais man sama parti parti pour la renaissance toujours africaine ma gis waa di def si loolu conviction moom la woon nag bu ba caaxaan passé mais doonu ko woon wax mais après gis nañ ni bind na livre vers le 2000 euh, un destin pour l'Afrique conviction moom la ñu xam ñëpp nee conviction moom la woon panafricanisme et tout ça mais dégg woon mu koy wax dégg nga mais man sama programme la kon nag boo gisee nit tuuloon nee na boo ñaan taw mu taw day eh, taw foofu nga toog tawul mais fee rek moo taw da ngay dem sa taw boobu yéen a fa bokk. Mm. léegi comme mi ngi doxal sama programme pour te dire que du feeñoot moo ma tax a jóg ma dama dem ne que ni dinaa la jàppale. dinaa la jàppale parce que yaa ngi wax affaire jigéen ñi yaa ngi jàppale parce que unité africain boo waxul woon dara lu dul unité africaine sax dinaa la jàppale. mu indi plan oméga ba yaa ngi koy fàttali ak yooyu ba Népal du ñëw ñuy wax renaissance ñëpp africain yu gëmoon unité africaine fédéralisme jóg taxaw ñoom Kadhafi ñii ñëpp ñu taxaw di ko xeex ba naroon na am am na bu fekkoon ni ñi nga xam ne amuñu si intérêt xeexuñu ko xëy na dina am lu mat ñaar fukki état yu nga xam ne nañu pour def benn fédération africaine ñu taxawal ko looloo taxoon ma jàppale ko 2004 laa ko commencé. mais est foofu war nga ko fa parce que moom. Euh, monsieur Mille àndam ak wàdd. Ah, sama càmm wax dëgg yàlla man kenn moomu ma de wax naa la ko léegi man daal nee sama programme la am si politique bi. waaw hmm. sama programme laa am boo ko doxalee. Hmm. ma jàppale la bu fekkee ni doxaloo ko. ma bàyyi. nga romb ko fa. ma romb merewu la ca. no merewu ma si. merewu ma si moom moom du merewu ma xëy nañ mën na am ñu ànd ak ay nitu mer mais moom merewu ma. Mhm. nga bokkoon ci CAP 21 di coalition bi nga xamante ne 60 partis yi jàppale woon Ablaye Wade. waaw te tey jii ñooñu dafa mel ni ci ñu doon nax wàdd xam nga ñu naan Macky tamit bennoo beeg yooyu noonu su defu ndànk dana tombé ci même piège mm-hmm. CAP 21 bi nga xamante woon dañoo gëm gëmloo woon wàdd ne mën nañ ko fi bàyyi mu sax fi dakk tey jii bokk nañ ci ñi ko nax ba mu foogoon ne am na mbooloo bu ko fi mën a bàyyi mm-hmm. maanaam coalition yooyu nga xamante ne ar nag sax la ko nit ñi di tuddee non wàdd man defe naa ne oraawu boppam la amoon mm-hmm. man lu ma la doon wax rek laay dellu si mooy yàlla mooy fal xam nga loolu am na ba pare nag yàlla moom ku sabablu la bëgg sama sëriñ day wax sabab sabablu leen bu leen sukkandiku yëngu yëngu mooy defal lépp ba pare toog xaar yàlla dégg nga. Mm. donc Wade moom yàllaa ko dimbalu bu gañe xam nga parti yu si bare si 60 yooyu après moom sax la ñu créé. lu ci bari ay deux 2002 2003 2004. su période Wade la pare parti yu bare noonu chiffre bi sax laa jàppul noonu mais am na dégg naa keroog naa xëy na ay 34 parti yooyu moo amoon. wala matu ko sax mais Wade entre 2000 ak 2014 la parti yu bare ba toll noonu xam nga kon nag ñooñu ñëwuñu pour ànd naka Wade pour wala pour nax noonu ñu si bare seen conviction la ñu am. ar mm, nag amu ci woon. Ah, ak loo ah. waat lu amul ndax parti cabine téléphonique ci ci ñooñoo taxoon sax ñi ñi di wax cabine téléphonique. waaw mais yow loolu yëpp c'est de man naa léegi cabal bu ñuy def si parti yu mais xaw ma pour lan la ay parti cabine téléphonique ay parti yi dañu bare mais parti yi lu ñuy def nit ñi parti moom doo ko dundal doo ko sàng doo ko def dara nit ki mooy xëy créer parti am parti yi xam ne amuñu activité wala amuñu dara wala amuñu programme bu leer dañ leen di créer ba ba ñuy dee kenn du leen xam sax. kon dafa daa ni problème Sénégal du problème mu parti yi problème mu Sénégal mooy problème ku ñu fal ki naka la ñuy def ba mu doxal programme am nit ñi jàppale ko si loolu mu doxal programme mu avancé man dama jàpp ne toll na fu nga xam ne malheureusement bu nit sax demee di jàppale ku ñu fal dañ fa naan des transhumance mm-hmm. mais ñu bare ñoom seen yoon noo gis nañ leen woole loolu neex ñoo xam lu tax ñu dem bu fekkee ni conviction dëgg pour réew mee tax am nga du ñu faale ku leen woowee transhumant ou pas fekkee tam xaalis sa tax seen yoon nekk si tam ñu woo leen transhumant ou pas ñoom seen intérêt la ñuy dox kon soxla wu sa yow nga transhumance. non dama la bëgg wax ne non la bëgg wax ne Sénégal nii la waroon tëddee dama jis réew yu mag yi nga xam ne Japon États-Unis ak yi ay réew yu bare bu dara daanoo seen kaw mu mel ne am ku leen attaqué wala ñu am problème gis nga ko keroog ci France gi dégg da ngay gis part yëpp def bloc jàppoo def front front sax lañ koy uni anti dara ñu ñun ñëpp ñooy jàppoo xeex lii ñu ñun ñëpp ñooy jàppoo xeex japonais yi chinois yi def na ko ñun ñëpp xeex allemand yi. mais xeetu problème xëy na mais dama nag Sénégal. Mhm. am nañu problème bu ëpp guerre. da problème sous développement problème yu jukko yu yàqu. problème mu ku bëgg fajo faju doo mën a faju problème mu boo demee dëkk yu ndaw yi mi ngi mel na nu leen seen maamaati maam yi ni ñu ko sose woon noonu la mel ba tey xëy na sax temps yooyu tane kon am nañu problème yu takku yu nga xam ne waroon nañu defee politique neneen nu dul pays yu nga xam ne dem nañ ba avancé ba egsi si démocratie di ko di ko doxee dañu waroon def ay front yu mag man de dama bokk sax léegi ñuy wax ni mu am benn président bi na am benn mandat rek sax bu dee cinq sept ans wala huit ans naka am benn. Hmm. mais dégg nga ak programme bu leer mu doxal ko une fois que élection yi jeex ñu def. comme waa Maroc fi indi instabilité institutionnelle. instabilité dama ne la dañu waroon jàppoo xoolal dëkk yu avancé yi xam nga balaa ñuy egg si démocratie alternance yi mais encore maa ngi dellu si rek si exemple bu ma lay jox dëkk yooyu yëpp nga gis ñu avancé balaa ñuy egg si mandat huit ans ak six ans ak sept ans. da ngay gis nit ko fa toog régler problème ñu jox ko programme nag mu rek ko ba mu sotti ñenn ñi dee leen fay jóge wala màggat wala sonn mais l'essentiel rek mooy na ñëpp jàpp pour réew mi avancer. Mm-hmm. mais après tubaab dem ba régler seen problème yu bare. Mm-hmm. ñu ne léegi nag nañu nañu. ayante ndax ànd nga yaa ngi naan bañoo parti yu bëri yi mais ànd ga ci parti bu sosu te musul dem élection. mais yow kan ko mu sonal. di la langaamu rek. dama ne parti bu sosu te musul dem élection kan la sonnal ku mu sonal si Sénégalais yi comme lu mu ko sonnalee kenn jox ko mu lekk kenn jox ko mu naan kenn fayalu ko permanence kenn jox ko dërëmam moom mooy jóg rek toog léeg-léeg xëy na nu nga mën a dabee si mbedd bi def micro trottoir daal di woo Mariam li si mbedd bi ni loo xalaat si li moom nga ka mën a wooyee bu fekkee benn nit la am si parti mu wax individu citoyen la comme ñëpp man daal defe naa c'est des faux problèmes du xool naan yooyu problème réew mi daal du affaire parti yu bari problème réew mi mooy nu ñu defee politique dadul noonu politique du ñuy defee politique nu ñu te ñu teguwul si yoon mi benn wax naa léegi nañu nañu nekk mànkoo nekk benn ñaar nañu doxal cosaanu réew bi gis nga dañuy def euh, euh, euh, nu ñuy administrer réew si làkku jàmbur déjà. dafa tax pour kaas koom. ah pour làkk jàmbur bi ñuy administrer réew mi. waaw kaas ko nii nii tardé wul yéexul. déedéet du yéexul déjà vingtième la fi dugg te ñoo ngi ci vingt et unième waaw mais dara mais yow lakk làkk boo xam ne làkk nga ka ba àddina sosoo ba léegi ba bu des deux cent ans rek lañ la ko tere wax matu ko sax xam nga AOF kañ la mille huit cent quatre-vingt-quinze wala mille neuf cent ñu indépendance mille neuf cent soixante juróom fukki at la tubaab bi tëgg bëgg ñu teqale ak suñu aada ak suñu làkk ak suñu juróom benn fukki at. Mhm. waaye ñu ñu bëgg ñàkk fay ba bëgg see topp. topp yaa ma ci may ci falaa doon ñëw. Ah. léegi jigéen ñi bi ngay sos sa parti di ngay bañ mooy président national des femme lañ leen di joxe yooyu mais yow nga sos sa parti demee Ela mujje jàppale góor. mais sa fee ya man problème posé wu ma sa problème bu góor ak jigéen. Mhm. dëgg dëgg posé wu ma problème bu góor ak jigéen nee naa ne. bu fekkoon am naa benn góor bu nga xam mi ngi doxal sama programme comme il faut la preuve jàppale naa jàppale naa nu mu tudd Ablaye Wade Ablaye Wade si programme am ñas tamit ba mu wëree ñoom ñëpp ku nekk dama ni tey du ma du ma déposer sama caution rek Ablaye Wade dama njëkk woo ne ma maa ngi ñëw léegi sa kër ma ni ko déedéet ni yaa ah, ma mag bàyyi ma ñëw man africaine laa ma ñëw ñu waxtaan ma dem si ñas waxtaan ñëpp ñu nekkoon candidat en liste waxtaan ak ñoom Abla kii euh, Moustapha Niass moo si gën a nangu suñu programme ñu euh, Ablaye Wade gaa nangu programme parce que devenir sax daf may dollil parce que lu mu wax d' mu ñu si parti discuter ñu ne kon nag Moustapha Niass dañuy gën a àndal. Mm-hmm. mais amoon nga beneen euh, possibilité lu tax présenté woo ak 2012. donc deux mille donc dama maa ngi woon si jàppale Ablaye Wade de parce que pour man mi ngi si toujours sur la ligne de renaissance africaine mi ngi si sur la ligne si unité africaine boole ko benn mi ngi si ligne yaatal Sénégal mi ngi si yaatal de waaw ku ku ñëw daal mu boole donc maa ngi woon si loolu 2007 mu continué jàppale ko. ba 2012 d'autant plus que candidature du yombul. Mhm. nekk candidate yombul de yombul naa ñàkk pexe mooy tax nga def ko. pour nga xam ni kon ko <laughs> naan dama koy def pour ñu xam la déedéet parce que lu metti la da si bàyyi da ngay bàyyi sa njaboot da si bàyyi sa alal da si bàyyi sa doole mais ci xëy na mënoon nga jàppale sa ñaari kii ku mel ni euh, Amsatou Sow si non non moom 2012 waaw ak euh, ku mel ni Juma Dieng non moom 2012 ñoom ñaar ñoo sama amoon nga peut-être euh, occasion racheté wu <laughs> jàppale nag ay jigéen comme bu joo dem <laughs> ok dafa ma ah. dara bay racheté wu de 2012 2007 loolu am na 2012. Hmm. maa ngi woon si Abdoulaye Wade ba tey. demoo ci soxna yi dañ ma def président déedéet maa man daal 2004 ba ma fa duggee. voilà hmm. toog ba 2012. Hmm. ñu def ma présidente des de la CAP 21 ba nga doon wax léegi ma yore jigéen ñi. ñu doxal si doxal bu rafet parce que ba suñ ma ka joxee su suba sa laaj dañuy def programme suñu programme xam nga lan la woon. mooy nañ jubale waa Sénégal. ba fas ngeen régime ba daanu 2012. waaw waaw loolu loolu lu yëg lu day daanu. Mhm. loolu moom moom du problème lu yëg day daanu man daal daanu ba moom. Ablaye Wade moom nga doon jàppale tey jii. Ah. nekk na au devant de l' actualité. waaw euh, ñu mën a dugg ci li xew. Ah. mu di procès Karim Wade. Ah. ba mu dooree ba léegi am na ay sorti yu muy def waaye mujjee naa tamit euh, boo xamante ne moom. nopp dalooti na ci li ñuy wax. ci ci kàddu yi mu ci yëkkati donte seen politique sénégalaise yàgg nañ ci dégg yenn xaxatloo yenn invective yi. du lu bees. Mm-hmm. Ablaye Wade attitude bi mu adopté tey jii. Mm-hmm. noo koy jàngatee. Ablaye Wade laal ma daf may reeloo xam nga mm-hmm. parce que Ablaye Wade dafa mën a xuloo xuloo africain lay xuloo <laughs> Ablaye Wade. dafa mel na dafa mel na Cheikh la may fàttali si leen. affaire xuloo Sénégal fu mu nekk ni si xuloo la nekk. xuloo xeex Macky la nekk daa jaaxle. dafa dem ba jaaxle ba pare nag bu fekkoon fu mu dem fu nekk ñu ni ko ah sa doom ji kat moo tooñ. da nga jàpp ni doom ji tooñ dama ne Abdoulaye Wade bu fekkoon fu mu dugg si Sénégal ñu ni sa doom dafa sàcc bàyyi ko ñu tëj ko xëy na kon du demee nii mais de plus en plus nit ñi dañ daan que dañ nga ko tooñ parce que kat procès nag day public. mais wanewuñ ñun man de dégguma fenn ñu ni jàpp nañ Karim si lii ak lii ak lii xam nga wax mhm. looloo tax bu fekkoon dama ne bu fekkoon ne Karim dafa sàcc dëggantaan mais kon Abdoulaye Wade du sañ a wax fekkoon ne wane nañu dafa sàcc pour pour bañ a dugg sa affaire de dama bëgg wax bu fekkoon wane nañu dëggantaan dafa sàcc kon xëy na bu waxee dina ki mais fu mu dem bare na nit ñu naan ko ah ñu de ñu ngi waaj a jaaxle parce que war na guñu fenn ne dafa sàcc xam nga mhm. loolu tax may ñaanaat man maa ngi dellu si sama présidente des femmes euh, defar xam na ñu tuddee woon suñu mouvement dañ ko tuddee woon defar moo ñu tax a jóg dañu tuddee woon suñu mouvement boobu maa ngi si dellu si di wax ne damay ñaan parce que lu ma doon wax léegi mooy réew mu nekk dafa am lu ñu wooye lobby te lobby du dara lu dul groupe nit yu nga xam ne dañu am doole ba nit ñi rus leen wala ñu ragal leen te loolu Sénégal mooy suñu nitu diine yi ñoom dafa mel na ni dégg naa am bu dul loolu ñu ñu baal ma mais dégg naa ni ñoom ñëpp ñu ngi ñaan pour ñu bàyyi pour ñu bàyyi Karim man xuloo boobu lu ma ko wax loolu lu metti la mais xuloo la te dàqul xuloo sax. Mm. dàqul xuloo sax. Mm-hmm. président Macky Sall parce que Macky Sall tam def na xuloo Afrique. Mm. nga Afrique booy xuloo nit da nga koy da ngay inventé nga da koy waxal loo xam wala nga inventé. lu mu def inventé bi nag mooy da nga naa ko jaam nga ak dëmm nga ak dof nga ak sama yaay lii ak sala loolu mooy xuloo Sénégal daal waaw da nga koy xuloo rek moom da ngay xaste rek xaste moom mën na nekk sos mën na nekk dëgg mais da ngay wax lu ñaaw rek parce que bu dee dëgg sax soxlawul wax asama laak bu dee sos kon wàdd xuloo africain lay def léegi waaw itam day def xuloo africain def na ko réponse africaine nan la ko defee ah nee sama baay la lu ma ko tontu moo tontu te bu ma kenn nettaleeti sax lu muy wax lu ma ko cofeel bu ma amoon si moom laa am si moom ba tey xam nga loolu moo koy faj doon ne keneen ko si wax yaa si dugg yaa si des mhm. dëgg yëpp nee na ne moom loolu dañ ko bàyyi noonu parce que ay waxu xuloo la wax yu sew la dugg si xam nga donc ñu ñu bàyyi ko mu dem rek xam naa ne daal sama mbokk góor gi moom dafa dem ba jaaxle ba ba sonn muy xuloo di seet fu ma jaar ba ba ba ba xuloo bi saf. ba xuloo bi saf waaw. bu xuloo boobu noonu ak procès Karim Wade 23 mars ak liñ ciy wax nii yëpp pouvoir dine ñoo ngi xaar kuy jéem a ma dëkk bi di nga ñu di nga jàkkaarloog ñun. Hmm. opposition ne Karim kenn du ko tëj buñ ko tëjee it mbedd mi dinañ ko dinañ ko envahir rek yooyu. Hmm. wax jooju noonu noo koy xaaree yow en tant que hmm. sénégalaise. man dama toog di xaar rek dama ciy dox ay jéego parce que nit ñi bu ñu toog di xaar rek. képp ko nga xam ne am na loo mën na ko si def ci biir côté ak bee côté dégg nga. Hmm. nañ ci jóg ñu wax si parce que njëkk sax dafay am si ku ne ñëg day am si état bi ñëg day am si opposition dégg nga loolu tax man si dox jéego yu ma mën ak ak ku bëgg fekk ma si pour ñu bañ a yegg foofu ñuy ñaan loolu ma doon wax léegi nañu ñaan bu fekkee ne am nañu preuve yu leer ñu ñu xam ne Karim Wade mi dafa sàcc nañ ko wane ba àddina yëpp gis ko noonu lay àddina de def de boo defee benn cours spécial bu mel noon dangay ngay koy def sax si dugg cours ba da ngay def si dëgg ëtt ba da ngay def si dëgg dëkk ba ñëpp ñëw ñu ne yaa def li bu ne maa ko def ba mu nangu ñu ne nañ dagg wala nañ ko nañ ko tëj wala nañ ko def daal kon nag nañ ñu won bu fekkee ne dafa sàcc ñu won ñu ko ba mu leer ba àddina yëpp gis ko liñ ko mënta def ñu d'accord bu fekkee sàccul nag wala amaguñu preuve ñu bàyyi ka loolu nag mooy solution bi man de loolu laa si des. waaw mais comme wàllu justice la ñëg yooyu noonu ndax justice moom mën na cee bokk. ah waaw justice ñun da nga nañu waxante dëgg. di nga àddina ci si la ñu nekk Afrique la ñu nekk senegal la nekk justice tamit ay nit la ñu rek nu ñun bu jusulee déggoo lu ma la wax dama ne la nañ doxal yoon rek bu fekkee jusuñu lu tax mu sàcc ñu bàyyi ko dëgg déggal mag ñu dëkk bu fekkee ne gis nañu dafa sàcc ah ñu wan ko nit ñu tëj lu gën a bon rek mooy nit ñi bañ a wóoroo su naan ñii lii wax ji di circuler laa bëgg mu leer si Sénégal mu mu jeex ñu naan ñii dañ ko bëgg tëj rek pour ri wala pour la pour mu bañ a nekkandax dañ ko wane mu leer xam nga bu leeree day neex parce que réew mi fii ñu ko bëgg a teg dama si d'accord dama d'accord ni dañ ko war a teg si alalu réew mi bu ko kenn defe ko ci sa poche mais yow dañ si def 60 ba tey ñu fi am xaalis ñu bare ñu nga xam ne jëlewuñ ko doon na wuñ ko fenn lu xaalis réew mi dafa bare léegi na doy na ba wéy na buus sañu wax de mm. waaw kon nañu bàyyi rek teg foofu xam nga dëkk yu doon xeex di reyante sax man Afrique du Sud dañuy dem ni naka lañ ko woowee dem ba juboo juboo ni léegi dañuy baalante dañuy daal di nekk benn Afrique du Sud xoolal lu ñu rey si nit ñu ñuul ñu tam nañ def noonu nañ def un point daal di nag léegi kii bu leer jëm fu leer mhm. fii ñu jëm dama si d'accord dama d'accord fu baax ñu jëm si leer situation bi bu kenn sàcc alal réew bu kenn sàcc situation réew bi fi toll nii neex na wala métti na ci sa gis-gis situation bi des na lu bare mhm. situation réew mi neexul lijjanti de yaay boy mhm. neexul a lijjanti te da ngay def effort rek ku nekk day ñëw def si tuuti mais man jàpp naa loo tax ma nekk leader ma yore sama parti ba tey bés bu ma gisee ne am na kuy doxal lu ma gëm dëggantaan damay seeyal sama baat. kon tey bu la Macky woowoon nga dem. ah Macky. donc ma gisoon dama ne. Hmm. bu ma gisoon ku nga xam mi ngi doxal sama programme dëgg kon damay seeyal sama baat waxuma ne Macky ngi doxal sama programme dëgg de dama ne solution wu Sénégal nit ki Macky am na bon intention mais da dul mën a. africains yi nekk ñu benn. li nga dëkk boo jël si Afrique rek moom kenn. lu ñu mën rek mooy raxas ba mu set bu kenn sàccati jàngale làkk réew mi pour ñëpp mën a comprendre lu ñuy wax dégg bu ñu fekkoon ni làkk réew mi la utiliser léegi xoolal rek jigéen ñi ni ñu baree te ñu jàngul si jigéen ñi nu mu baree mais bu ñu leen bindaloon si olof di wax si olof assemblée nationale commencé nañu am euh, traduction simultanée maa ngi félicité président Moustapha Niasse si loolu parce que léegi nag bu ñu yem foofu ngay wax rek ba bëgg bu ma neexee ma wax joolaa ñu traduire ko si olof traduire ko si séeréer traduire ko si français ku bëgg a dégg-dégg loolu baax na mais itam texte yi loi yi ay yëpp nañ koy bind. Mhm. jàngal nit ñi seen jàng parce que léegi bu ma la jàngalee français balaa ngay xam texte su français daa ko mën a lire mais xam mais bu dul daal dindi fi li fi tubaab bi def yow jàpp nga ne lépp ok. xam naa li ngay wax nii mooy dindi fi li fi tubaab bi bàyyi. ah waaw nañ nañ dellu suñu cosaan rek. <laughs> bu ñu delloo cosaan yow ah gis nga ne ah lépp baax nañ fi dindi nañ fi dindi lu tubaab bi bàyyi. mu ngoog sénégalais yi sonn ñu. tubaab dañ sonn. Mm. ah sénégalais yi kay. sénégalais yi sonn nañu kay yaay booy. sénégalais parce que léegi nee naa la jigéen ñi gën a sonn puisque ci huit mars la ñu wax. Mm-hmm. jigéen ñi lu tax ñu mooy ba léegi boo leen bëggee jàppale loo leen di indil mu la mu la amil dégg ba léegi am na ñu nga xam ne seen liggéey fóot la wër di fóot ñu lay fay ba léegi am ñu nga xam ñu ngi dëbb gën ak kuur du ba léegi am ñu nga xam ne boo leen joxee ki pré yooyu gerte caaf ak yi saw sawaan la ñuy jaay wala ñu dem jënd eh, ay ay tissus si chinois yeeg yooyu di jaay mais loolu bu fekkoon ni dañu bëgg jigéen ñëpp participer si développement réew mi waroon nañu village bu nekk am benn unité bu farine farine de ku am sa farine dem jaay ko usine boobu ku am sa dugub dem jaay ko usine boobu usine boobu dëbb mhm. fekk ah, jaay ko waa kii dañu war a passé yooyu yëpp léegi dama doon wax ne waroon nañu passé sax bu fekkoon ne suñu xel si loolu rek la dem ñu seet benn forme énergie àddina dox na ñu wut ko ñu si jàppale waaw loolu moom xaaral loolu xam naa sa programme bi la bokk. ci la bokk waaw ci sa programme <laughs> léegi boo ci gisee koo ci waxtaanee rek ba ngeen déggoo ci mais ñu tell tellu si waat ci kii bi. Ah. Euh, comme yow moom tubaab bi lu fi def xanaa projet de modernisation des daara am nga ci xalaat. modernisation des daara dama koy suivre de près. Mhm. mais lenn laa dégg kenn di ko wax. benn si imaam yi si seen télévision sax lay wax ne nee nañ dañu bëgg mu am benn modèle de sénégalais rek. mu ni nag man mélange de sénégalais lay doon dañu bëgg sénégalais mel ni parce que ñaari modèle am ñu nga xam tubaab yi leen formé ak ñu nga xam ne si daara yi lañ leen formé ñun itam introduction de langue du français xam nga kon du ma si d'accord parce que man da ñoom lu ma si jaaxal mooy dégg naa Serigne Mbaye Thiam daal ni léegi dina introduire rapidement du ba ñetti at ñu introduire langue 81 Abdou Diouf waxoon na def ko dégg nga moom mi wax naka nee na dina def 3 pour cent budget boo gisee langue national lu ñu leen jox 0 virgule 08 pour cent lañ leen jox si langue léegi lu tax ñuy jàngal doomu jàmbur yu tubaab di indi problème nañu na nañu bàyyi làkk jàmbur bi te làkk suñu làkk modernisation de daara daal mhm. bu fekkee ni mooy fexe ba daara yi mel comme école tubaab école française je suis pas d'accord d'accord d'accord université ndax euh, professeur nga xam nga ci wàllu enseignement li fa xew tey ñu ko fay dund diggante SAES ak gouvernement. waaw gouvernement la wax dëgg yàlla booy defaral nit. ña nga ña ko ña ko xam ngay wax buy wax affaire baykat yi day day dala baykat yëpp. ni leen ni lu ngeen xalaat. ñu jël seen ay di ko defar mais yow étudiant yi nu wutu de professeur yi wax dëgg yàlla ñoo xam nañ université bu baax nañ leen déglu. ma d'accord ma ñuy def bras de fer ak waa kii waa SAES ak waa université. nee nañu bëgg ñu loi boobu dem nañu ba taal ka lakk ko mais nañ leen leen déglu ñu seet lu ñu bëgg. mais ministre bi nee na tey tey lañ ciy gën a mën a taxaw. ci loi ah, boobu ah loolu dëgg bras de fer laa la wax bras de fer mooy mu jàmbaarloo bu ñuy def ak ak ak ak ak ak ni bi moo baaxul. askan bi doo jàmbaarloo moom même loi lu mu baax baax balaa nga koy appliquer wala nga naan nul n'est censé connaître la loi day fekk vulgariser nga ko waxtaan si ba nit ñi xam ko ba nangu ko nga def mais loi bu nga xam boo ko defee dañuy nee nañ ne carrément duñ ko appliqué soxlawul di def loolu xeex rek lay indi ak mhm. mais tamit enseignement supérieur dafa mel ni ñoom ñi li ñuy bañ mooy professeur yor ko ci Sénégal ndax professeur bu yor enseignement supérieur doo jubóog waa SAES e ñi nga xamante ne ñooy syndicat yi ah, est-ce que duñ jël benn commerçant wala benn financier jox ko enseignement supérieur ah, am parce que dafa mel ni entre professeur moom day jafe pour kenn jiite mooy généralement si domaine yu bari la boo moytuwul boo ko joxe ku nga xam ne da leen miin rek ngeen am problème parce que loolu lu mu def xëy na dañuy defe ne affaire yabaate la wala dañu miinante wala loolu alors que du noonu normalement daa war nañu déggoo mhm. moom mi nga xam ne si boobu la nar a dellu parce que ministre kenn du sa dee war na fexe ba jubóog mbokkam yi parce que xam naa mu kii euh, nu mu tudd euh, ministre bi xam naa ko bu baax mhm. jikkoom yi dama ko doon woo bañ koy doog a félicité euh, nommé sax di ko félicité naan sa jikko bii nga mel daal suufee di ak nit ñi di nangu na ko continuer mais comprendre ma daal muy def ay bras de fer moom ak état. kon dafa changé si diggante bi. ah waaw de toute façon c'est pas lui qui décide xëy na xam nga mais daal lu si boor mooy. d'accord ma ñuy def bras de fer ak mhm. bu ñu dellusiwaatee ci 8 mars bi euh, jigéen ñi gis nañu Sénégal percé jigéen ba léegi des naa parce que boo xoolee ci ñi fi accédé ci haute sphère de l'État. Mhm. da ngay lim sa baaraam ba du jeex du mën de. Ah, da nga naan premier ministre Mame Madior. waaw ah. Mimi xanaa nga yokk ci président conseil économique sociale et muy am detaal mais ah. ñett la de xaw ma nag boo amee ñeent ah. sa jigéen ci kaw ah. ba léegi lu tax mu yéex Sénégal yéex na yéex na surtout Sénégal mi ngi am loi bu nga xam ne amul fenn sa àdduna ñoo mhm. fi damay wax ni day mel na benn ponkalu séeréer bu nga xam hmm. mu daanu Sénégal loolu lay mel ci affaire jigéen boo ko déggee rek nga ni yoo Sénégal avancé na ña nga am parité au niveau de l' assemblée des des naka des fonctions électives et semi-électives. Mm-hmm. alors que boo demee sa àll ba euh, àll ba lañ koy woowee di boo demee si dëkk yu ndawe nga gis ni ak si biir dëkk bi sax Dakar sax nga gis ni jigéen ñi dañu sonn ñi nga jigéen balaa ñuy avancé dina metti lu tax xam lu tax parce que. Euh, lu war a tax jigéen arrivé si yenn station yi mooy mu am lu ko jàppale bu baax dama ne euh, ba ñuy doog a wax jigéen ñi ba ñuy doog a wax affaire émancipation de la femme am nga au départ émancipation lañ doon mhm. mooy rek fexe ba am droit jaam sax moo moom lay émancipé may ko ay droit muy fexe am ay droit droit wu jàng mhm. dégg nga droit am liggéey droit lu ñu liggéey ñu fay leen ko nu ñu fayee góor ñu fay leen ko léegi dañ si boole woon booy liggéey nga am creche fay denc sa doom yi mhm. ñu am ay cantines yu wóor yu nga xam ne xale yi dañ si mën a añ fekk état bee ko jël en charge ngay fay tuuteeg yooyu xam nga donc yooyu yëpp dañ ko jël teg fee cest à baas base bu nga xam ne mooy tax jigéen am taxawaay bu baax moom moo amul kon ci base bi la base base moo amul moo moo dëgëroon de parce que jigéen mënoo fexe ba jigéen du ëmb mënoo fexe ba jigéen du nàmpal mënoo fexe ba jigéen du boot yore doomam yore njabootam toppatoo këram ba ba mu màgg mais loolu boo ko si jàppalewul foofu du dem fenn. Mhm. parce que da ngay gis maa ngi wax ne Amérique dama def ay femmes américaines ñu nga xam ne jàng nañ ba sore mais léegi dañ ñaa bëgg ñu ko leen jox. ay poste de responsable du ca ñoom. lu tax nee nañu lu tax nee koo kon duñu mën a toppatoo seen waa kër. xam nga àddina day dox amoon nañu temps jigéen ñi féminisme à outrance góor bu toxee ma tox bu doxee ma dox bu tëbee ma tëb ak yooyu. Mhm. mais comme àddina day dox te nit day yeewu dem nañ ba yeewu ba xam ne jigéen ñi bu ñu bàyyee seen kër toppatoowuñu seen doom nàmpaluñ ko toppatoowuñu seen kër xëy na doom yi ñu am du leen kon nag naka la def. du ñu sacrifier seen i doom du ñu sacrifier seen njaboot du ñu sacrifier seen kër au service d' autre chose dañuy organiser wu gis nga leen dañuy organ euh, Europe léegi dañuy def congé parental da ngay jël congé 3 mois 6 mois 1 an 2 ans léeg góor bi wala jigéen pour rek ñu toppatoo njaboot gi. Mm. toppatoo xam ne loolu am na solo. Mm. kon nag pour ñu mën a toppatoo njaboot gi pour ñu am ay nit yu dëgër yu taxaw si seen kaw tànk il faut que jigéen ñi ñu doole leen si lool jàppale leen si électroménager bi. dañu war a passé toog gupp dañ ko war a passé dañu war a mais loolu nag ak sous développement bii bi mbax ndax dina yomb kii rek la option la option la pour état bi dem di leen di option la ay matériel yi électroménager c'est-à-dire doo mën a rek damay wax ni lu mu lu mu laaj luy tubaab di wooy révolution mooy euh, am na jàllar bi loolu la laaj ndax lu tax parce que boo si benn bàyyi beneen rek du dox. Mhm. boo buggee réew mi avancé da ngay changé yëpp ngay changé doxin bi yëpp ngay changé. yaa ngi dégg mhm. artisan yi boo leen jàppalee dinañ inventé ay machine yunga nga xam ne ay yoo xam ne xëy na sax mécanique la mais mën na remplacer toog bi dugub. dinañ kon daal tâche yi ci ci gàttal. moom nga bëgg daal ñu dimbale leen ci. ñu daal ñu dimbale leen ci tâche ménagère mais ci pal gi nag pour ñu yegg ci kaw moom. waaw dama ne que jigéen ñi tamit dañuy dem ba mu yàgg. Mhm. xëy na. du duñu loolu si cause yi la dama la du benn du benn kii rek benn cause rek la am cause yu bari benn si cause yi mooy jigéen ñi tamit dañuy dem duñu mën a demandoo ak góor ñi toujours mm. dégg nga loolu am na si deuxièmement mooy mais jigéen ñi xam nga chef de parti yi la ñuy nommé de seetu nga ko mm-hmm. bu amee coalition chef de parti yi la ñuy nommé généralement te chef de parti yi ñoom euh, duñu ay jigéen ay góor lañu coalition lu mu gën a bare rek am na ko si def étude xam nga Fatou Sow Sarr la xam nga ni coalition moom fu mu gën a bare rek jigéen di gën a dellu ginnaaw parce que chef de parti yi la ñuy sédd te chef de parti yi ay góor lañu tuuti jigéen na am c'est rare ñu dugal jigéen mais leen naa ngi sam mooy doxaluñu parité bi ba mu sës maa ngi bokk si observatoire national de la parité mais tamit hmm. compétence Ah. est-ce que bokk warul bokk tam ci base yi ñuy ah, jëlee jigéen ñi dama nekk professeur wax nga léegi waaw mais dama nekk professeur dama ne la mhm. yi léegi da ngay dem yenn classe góor jigéen ñi yëpp góor ñi wala xam nga loolu donc jigéen ñu jàng yu am compétence bare nañu mais nan la ñuy nommé Sénégal nga fa ni compétence tax ñuy nema nit bu doon compétence kon dina neex fekk fekkoon ni rek ku fal ku nekk da nga naan dama bëgg benn ministre de la santé heureusement Iba Marie Coll moom c'est son domaine dañu damay xool compétence laay seen bu ma intéressé na nga ñu tànn ko si mën gënu mën kon day baax ñu ne noonu si ministère bu nekk ñu def noon xam nga kon day baax mais duñ ko def kii moo réussir si politique kii moom ma gën a mën a défendre politiquement ak yooyu ñu def la ministre taxul ñu nommé Sénégal mm-hmm. bu fekkoon compétence wax rek. Mhm. xëy na dinañ am ci gouvernement yi ñu am plus de jigéen. que de waaye obligation de résultat buñ koy xool tamit ñooñu ñu jot a nommé surtout ci primature ñaari femmes biñ ci jot a am. Mhm. yàgguñ fa yàquñu fa. par rapport ak góor ñi niñ fa mënee am longévité est-ce que tamit du obligation résultat yi ñu doon xaar si ñoom est-ce que amul ay góor yu gàtt la tam. sooxewuñ ko est-ce que amul góor yu gàtt la tam si histoire Sénégal nee naa la raison politique rek la daa fay kii de góor ak jigéen. ay raison politique la président bi daal mooy jëkk saa biir situation kii defe na ne moo ko mën a régler mu jël kooku politiquement teg fa. Mhm. affaire politique rek la. Euh, ah, loi parité bi ngay wax noonu. Ah? loi parité boobu noonu est-ce que bañ koy def tamit Sénégal pare woon na pour appliquer ko parce que bi ñuy def investiture indi na fi problème bu dul jeex ci législative yi. noonee ci local yi est-ce que euh, biñ koy def c'était pas prématuré ndax euh, nefuñ ko. revendication politique la woon jigéen parce que maa ngi lay wax ni concept bañ koy créer euh, Doudou Sine la tudd moo woowoon jigéenu Sénégal yëpp quatre cent la ñu woon quatre cent association mille neuf cent cinq septembre mille neuf cent soixante quatre vingt IAD daal ni léegi dama bëgg ngeen def benn organisation jigéen ñëpp jàppoo pour ñu xeex lii ngay wax de quatre-vingt-treize la woon ñu ni parce que pour jigéen ñi ñu bari ci gouvernement bi accès aux instances de décision lutte contre les violences aux femmes et cetera et mu def ko bañ ko defee ñu def séminaire pendant deux jours trois jours ñu ne nag léegi d'accord nañu dañuy def benn organisation tudd conseil sénégalais des femmes muy COSEF mais ñaari at yu ñuy tëgg pour comité d'initiative bi ku ci liggéey ñeneen ñëpp bàyyi nañ ba mu def femmes politiques yi ñii lañ <laughs> ñëpp. Mhm. ñu nekkoon société civile bàyyi nañ bu yàgg. femmes yi politique rek a ci defoon politique yi ñoo ñoo ñoo am boobu takk. lu ko waral ñoo ko amoon. Mhm. parce que ñoom dañ am seen programme la dañ am takk boobu xam nga ñeneen ñi balaa caat ñoom sacrifié nu ñu bare femme politique yi am nañu bare nu ñu sacrifié seen jàng ñii seen ménage ñii seen lu ne te jaraloon na leen ko donc ñoom ñoo fa des xeex ka xeex ka ba taxawal. 94 11 mars 94 ñu taxawal COSEF commencé nag démocratie ouverture di def campagne di wër secrétaire général parti di wax ñi ñëpp dañuy wax ne ba mu jur ba mu jur parité bi parité bi waaw léegi nag parité bi mënuñu ko woon rek tëb mhm. daal ni parité intégrale domaine yëpp ñu appliqué ko ñu neen kon nañ ko commencé si au moins parce que dañu jigéen ñi xëy na bu ñu nekkee si instance de décision yi bu ñu nekkee assemblée dinañu mën a voter ay loi yu nga xa tax yeneen jigéen ñi seen seen laata ñu koy voter est-ce que laajutoon ñu tàggat soxna yi ñaax leen ci ba noppi doora nag jël boobu décision waaw mais démarche la rek sa à dire que démarche la fu mu ne nii ñii ñii ñii ñii jàll assemblée dañuy nañu góorgóorlu rek maa ngi leen di woo maa ngi lancé appel jigéen ñi nga xam ne yàlla def nañu ñoom ñoo njëkk a jàll si affaire parité bi dañu góorgóorlu bu baax a baax a baax parce que àddina yëpp ñoom la ñuy xool Mm-hmm. mais ah. bu ñu bu ñu tënk woon tam ci suñuy valeur ak suñu coutume. Ah. xam nga parité bi moom suñu suñu dundin la accepté wu ko la preuve bi ñu defee loi boobu ci local yi fu mel ni tuuba liste paritaire amu fa. dëgg la ndaxte loolu bokkul ci suñuy suñuy gëm-gëm. dëgg la dëgg la loolu tax loi politique la. Mm-hmm. moo tax tamit prudence boobu amoon tamit ñu ne nañ ko def rek si affaire élection yi parce que temps yooyu parti Touba xam nga du parti mooy fal. boobu exception la nit ñi waroon xam expliquer ko bu yàgg parce que Touba du parti mooy fay sëriñ bi mooy far te amul sax élection benn liste rek fa am xam nga Touba vraiment c'est une exception dans tout ah il faudrait que nit ñi nangu nag ni Touba exception la xam nga fekkee ni am na yeneen dëkk yu nga xam ne dafa mel na moom ah xanaa ñoom ñu def ni waa Touba mais nag Touba moom exception la parce que loi bi dafa ni liste bi parti yi ñun jàpp de modifier il ñu xool ko dañ jàpp ne parti yi ñooy fal parti bu nga xam ne yaa ngi déposé sa liste pour loolu bu fekkee respecté wala ñu yónnee la sa liste. Mm-hmm. am nga mais Touba moom comme du parti fal loolu waroon nañu comme nu nga ko waxee léegi tenir compte suñu réalité. Mm-hmm. xam ni tamit am na coin comme ni ma ko doon waxee léegi am na coin yu nga xam ne. non doo leen imposer n'importe en tant que jigéen sa statut jigéen. waaw lu mu la mos a gàllankoor wala mu jural la ko ci frustration ci sa parcours politique. ah yow daal lu bare. Hmm. lu bare surtout boo am nekkee jigéen nag am programme ni da nga bëgg a yore mi am sa parti politique bu ñu séddale de doo si am dara boo may tuul góor ñi am parti bi ñoom duñ la xajal parce que dañ ñaa bu ñuy séddale réew dafa nekk benn jigéen il faut ñu séddale dañuy def tout pour xeex la. déjà benn jigéen ñi tamit duñ la jàppale jigéenu politique ni yow la duñ la jàppale. lu tax loolu boo moytuwul sax ah parce que pour ñoom am nga rek papa xam nga politique xëccoo la kii normalement war woon demee noon mais ñu bari duñ la jàppale xam nga parce que pour ñoom. xëy na boo ñëwee si seen coalition wala boo ñëwee seen parti wala bu seen seen leader bu la bu ànd ak yow di leen jël benn poste jox la ko tur ñu leen di ko siis di <laughs> ko am leader moo gën am problème moo gën am problème mais nag loolu man de façon du ma tere continuer parce que sama programme maa ngi si taxaw léegi nii sax fu ma nekk nii xanaa pour élection de la non man élection rek laay liggéey de mm. man élection taxumaa jóg sax boo moytuwul xam nga lu ma tax a jóg mooy Afrique boobu nekk benn fu ma nekk nii maa ngi jokkoo ak ay góor ak ay jigéen ñu am maanaa. Mm-hmm. yu nga xam ne ñu ngi liggéey pour taxawal benn. mais gisatuñ la yow yow si wàllu politique moom dafa mel ni moom envolu pare naa ba ni. dafa dafa dafa dafa brisé wu de ci yoon. parce que bokk ma si bokk si euh, euh, riirandoo bi laa bokkul xanaa xamoon ne lu ma si wax lu ne. Hmm. bu amee benn wala ñaar wala ñetti nit yu di ko wax rek ma daal wut beneen pour ñu avancer. maanaam li nit ñi di wax yaw yow bëggoo. déedéet lu ñu nit ñi wax moo a d'accord xam nga dama doon wax approche hmm. ba may campagne di ko wax di ko wax ba léegi. yàlla def na ni société civile rek si doon gën a wax léegi parti yëpp a ngi si wax man it xayrul parce que professeur la man sama sama problème mooy lu may wax bu dee dëgg rek yàlla na dugg si bopp benn wala ñaari nit yu nga xam ñu ngay xeex pour lool avance ma daal dugal beneen léegi daal bu ma dugal ma bëgg ñu jàppale ma si mooy nañu xeex Afrique nekk benn boobu laay xeex léegi loolu na soxlawul di jël rajo yi toujours wala di xeex ak di xuloo bu président Sall defee dara ñu ngi ko dénk Népal bés bu defee dara rek damay bind lettre ni ko maa ngi lay félicité taxawal si tànk boobu góorgóorlu rek jàpp parce que dama jàpp ni boo falee ni sax bàyyi ko. bu defee nag su du noonu nag. même chose. damay bind mais doo ko doo ko wax damay bind. Mhm. damay bind mais sa parti ñaata militant ci des parce que. pare naa kenn man kenn mais dool terewul ma parti laa am <laughs> man daa ba la neexee ba doom nga fa ne mais daal lu ma la <laughs> xam nga nee naa la problème bi daal bàyyi leen parti cabine nag man sax dadul cabine parti man kenn kay xam nga ne xañ matul sax carte ma yéer matul sax carte nee naa la man kenn man dong la <laughs> kon réunion bureau politique yeeg communiqué yëpp yow noonu yaa koy def xam naa laa kenn dundal leen kenn sàngu leen man daal sama parti bi hmm. dama bëgg daal ngeen xam ne la ñuy woote mooy nañu nekk benn na réew mi nekk benn ñu daal di xeex parce que am na ñu nga xam ne ñu nga organiser fee di ñu xaar Mm-hmm. muy organiser bés bu Afrique jógee seetlu ngeen ko kenn xale bu Afrique bu jóg di xeexe rek Sankara dañ ko rendi Lumumba rendi mm-hmm. ah, Malcolm X fee rendi kenn ku jóg di taxawal xeet bi mm-hmm. am ñu nga xam ne nga xam ne seen fulaakaay la di xeex léegi nga ah? topp si tànk ñooñu ah, bu yeboo mais daal dama bëgg rek na nit jóg daal na nit ñi jóg taxaw ñu xeex maa ngi lay sant di la gërëm Mariam Wane li jiite parti bi di Parena di la bàyyi nga tàggatoo. waaw kay maa ngi lay gërëm di la sant di nuyu waa mi yëpp di ñaan góor ñee jigéen ñu ñu jàppoo nekk benn am na yoon yu leer yu yàlla sàkk bés bu nekk ñu wax ñu ko nañu jàppoo nekk benn liggéey réew mi bàyyi xëccoo bi xuloo bi xeex bi li amul njëriñ. maa ngi sant di la gërëm di sant di gërëm sama ñaari càmmeñ yu baax yi El Hadj Modou Diouf ak Papis Mbaye di sant di gërëm oustaz Assane Diouf mi nga xamante ne moo réaliser émission bi waaye duñu fàtte salon de coiffure ku ma nekk ci avenue Bourguiba di sant di gërëm Jami Création Serigne Silla ak Aram ma leen di sant leen di gërëm ci abima bi mbokk yi jaa ngeen jëf di leen di jox rendez-vous beneen ayu bés incha allah ci seen émission sortie toutes les femmes certaines plus reines que les reines. Elles disent des choses qui surprennent.